ñu ngi lay delloo nuyoo ak siyaar yaak sëriñ Abdoulahi ak kilifa gu baax gi ngeen àndal bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Mbacke kàddu yi nga yëkkati noonu la ko yëkkatee woon ba ñu teewee ci kanamam xamal nañu it na yitte yi ko téye day jóge ca Cheikh Amadou Mountakha ayadahu la wa nasara waaye sab teewaay matale na mat nga ndaw sëkk ndax kàddu yi nga fi yëkkati ak taxawaay bi nga fi taxawee sedd na sunu xol dalal na sunuy xel soññ nañu it kon ñu ngi lay delloo nga dellool ñu ci moom kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm ak kàddu yi ñaan di ko xamal ne lii de yëg nañu bu baax a baax pas-pasam ak yéeneem ci liggéey bi ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal fan wu gudd wànd wér-gi-yaram ak tawféexi sëriñ bi ba ay yéeneem yépp mat ci kanam Cheikh Ahmadou taxaa mi nga xam ne dafa taxaw temm ci lépp lu bëgg mun taxaa rek mu taxaw ci ba loola sotti yàlla na ko ci yàlla kattanal te dëxëral ko ci. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci liggéey bii nga xam ne liggéeyub lislaam la euh, neenu nga ko waxee euh, mel na ni diisoon na waaye diisut ndax Serigne Touba moom. daraam du taxaw ah Cheikh Ahmadoul Mountakha waxoon ca liggéeyub loola dafa wàll ba wàll ci béréb bii ndax biñ ko tàmbaleeg léegi waxtu wu ne dañuy gis ay xéewali sëriñ bi ba mu yegsi fii kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax a baax a baax di woo mbooleem boroom xam-xam yi mbooleem jur yi dëkkandoo yi gox bi ak dëkk bi yëpp nu ñëw dugal ci seen loxo jàpp ci te indi njaboot gi ñu jàng ndax pas nañ ci bu baax a baax loolu mu am njàngin wu am solo ku dëppoog li ko sëriñ bi bëgg loolu day mu mel ni bi ñu jógee ngir samp ko programme bi dañoo gis ne état bi dafa am lu tudd ñetti programme am na programme bu ñuy wax classique nga xam ne français kese la am na franc ah, bu ñuy wax euh, FA nga xam ne franco la arabe bi cinquante cinquante lay doon mook français bi am na bu ñu tuddee it arabu islamique nga xam ne arabe bi moo ëpp waaye français nga ci biir bu ñu xoolee dëkk bi ñu ne engrais environnement bi ñu nekkee ñu gis ne euh, euh, euh, franco arabo islamique bi moo gën a dëppoo ak béréb bi biñ ko jëlee càmbar ko dem ci kilifa gi nga xam ne mooy Serigne Aliou Mbacke wan ko ko mu càmbar ko ñu wan ko Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Moussa Habsa mu càmbar ko lañ ca digal mooy lépp lu ciy diine nañ ko dëppaleeg njàngum sëriñ bi te dolli ko ci ba mu saf ci bu baax loolu nag ci la ñuy doxee nga xam ne kon xale bi tey ni muy amee cours yi arabam noonu lay amee cours yi français am. xanaa ñu koy jàngal français bi it daanaka programme bi nga xamante ne bii mooy dox ci état ci programme boobu moom la ñuy dox fii doxal fii su ko defee kon day mel ne xale bi e, bi muy jàng arab saa bu amee certificat ci kaw loolu day fekk ne français mi mi ngi dox. ba day mën a am certificat français. su ko defee bu saa bu demee ba am certificat day am entrée sixième am euh, wuti brevet am noonu it fi lay nekk nekk fi ba yàlla dogal ba am ba am brevet su amee brevet it euh, pour wut bagam atam mu njëkk la fiy def muy ula sanawiya bi seconde bi ñaari at yi fi des dañ ko amaguñ ko ci jamono yi ñu toll nii kon dañ koy jàllalee daam mu def fa saani sanawiya ak saalis sanawiya def bagam bu defee bag bi nag ba noppi. fa tabaarakallaahu euh, am na ci xale yoo xam ne dañuy tànn ñuy orienté leen université Cheikh Anta Diop am na ci ñoo xam dañuy tànn ñuy oriente leen ci université bi sëñ Maam Mor bi am na ci it comme ñi ngi dox ay jéego ba université bi nga xam ne moom la Cheikh Mountakha di dox ñu ngi koy dox ak euh, kilifa yi ba am ci ak déggoo ci ne su ubbee suñ demee ba am xale yi mel noonu nga xam ne am nañ seen bac danañ mën a tàbb ji foofa yeggale seenum jàng fa tabaarakallaahu kon daal noonu lay demee asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa